jàpp ko xam na li may wax man xale yu jigéen ñi ragal du man bu yeboo ngeen ne damaa iñaan mais xale bu jigéen bee ngeen tax ñu dàq ko mu ñàq liggéeyam ndax seen affaire yu ñàq fayda yii kon ngeen may ndayu nit ñi jàmm bu ngeen dëbbate Sénégal ngeen dëbbate ko mais Europe fii moom du ngeen fi ñëw moom ngeen di duulal nit ñi wala ngeen di sosal nit ñi ba tax ñuy jàpp nit ñi di leen renvoyer di leen dàq seen liggéeyukaay yéen lakkale kenn ngeen sono ngee leen da nga fay toog bëgg a lijjanti 1000 francs doo ko am nga sonn Sénégal jaaxle nga jogee ci senegal ñëw Europe bëgg a nekk sa jàmm ay kilifa yoo xamante ne amuñu personnalité di indi seeni caga yéen toog ngeen dem ngeen may nit ñi jàmm mais kooku ngeen fekk foofu muy liggéey ngeen yàqal ko liggéeyam ndax lan da leen a gis ndax da leen a gis te moom dafa nekk sénégalais comme yéen ngeen foog ne da leen di boole wala da leen di kii kooku amaana sax mën na leen sax bañ a gi yaa ngi dégg buñ duggee libiton ñu ngi dugg Chanel ñu ngi dégg fii ñoo ngi dugg fii léegi ko wax ñu naan la dangaa iñaan dangaa soxor da ngeen lii xale yépp ñoom ñoo leen fayal ay chirurgie une de trois ñu fayal xale yi ñoo ngi fayal xale yi ay chirurgie ñoo ngi leen di ubbil ay boutique ba pare ngeen ne kenn du ko wax léegi waxatuñ loolu nag doomaraam yi ngeen fekkati sénégalaise boo xam ne mu ngi daan dooleem ngeen xañ ko liggéeyam loolu dañ koy xeex France li ngeen fiy def dangeen koy def mais da ngeen di bàyyi nit ñi ci jàmm ak salaam kenn lijjantiw leen ndax bu ngeen nekkee ay mag yoo xamante ne da ngeen a nekk ay mag yoo xam irresponsable ñàkk fayda amoo leen vergogne di iri ay xale yu ndaw te yor seen jabar yi ngeen yor seen jabar yi ba pare ngeen di iri ay xale yu ndaw ah woykat yoo xam ne buñ toogee di duul di victimiser wu ay duulkatu ndaanaan lañ nekk ñu benn victime ñoom ñoo nekk seen victime bopp. ngeen dàqlu ko ndax lan ndax da ngeen faa iri seen caga mu gis leen ak seen caga ngeen bu foog ne da leen di siiwal ngeen fexe ba yàqal ko liggéeyam yëfu doomu xaraam yooyu laa wax moom mooy lan instant bi nag mënaguma jël ndax damay développer lu bari après dinaa jël ci kanam pour yéen ñi def demande bi. ndax damay expliquer te li may expliquer tey pareeguma ci te bu ma ko jëlee fii léegi da ngay live te yow mi nekk borom live bi duñ la may yow nga wax duñ la may yow nga développé ndax damay commencer développé balaa maa wax balaa maa wax ñu dagg ma te loolu day yàq live live bi des fois day jaxasoo kon tey duma jël kenn ba expliquer li may expliquer ba pare nag su ma paree ma doog leen a yéegal ñang baalo maa ngi lay nuyu. ndax live bi léegi dama ci jël samay matukaay ndax fi mu toll booy wax yow mi nekk borom live bi yow mënoo exprimer loolu day yàq live. ok est-ce que yéen may dégg sama sœur boobu dañ koo dàq liggéeyam ndax papa naa moo tax mu ñàkk liggéeyam ni ba pare Sénégal dañuy jàpp nit ñi ndax xaalis xaalis tax na fi mu toll ñu bëri sañatuñoo wax xam nga ne kooku ñu def ko loolu plus de un an xaw ma plus de deux ans te xoolal bu ngeen xoolee hôtel boobu noonu artiste bu ngeen gis chanteuse bu ngeen gis mu defa fa senap xam leen ne moom moo leen fa indi artiste chanteuse bu ngeen gis mu defee fa senap te bu ngeen duggee ci seen senap yi am na ci ñoo xam ne fa lañ defee seen senap yi ba ci euh, xale bi mamaanaa 23 ans fa la defee senabam bi bu yàggut et si je m'en tape xool leen seen senab yi bu baax a baax a baax xool leen seen senab yi akay ah, bu ngeen xoolee seen senab yi di ngeen xam ne man li may wax dëgg la xam nga am na chanteuse bu fi demoon daaw Paris di dugg ci bitigu joor yeeg fendi kon bu ngeen yoree ay saagu fendi wa wa tubaari kàll nag war ngeen koo yor bu ngeen yoree ay saagu joor war ngeen koo yor ndax jëkkëru jàmbur ngeen di tëddalanteel ci hôtel yi ay cinq jours vous n'avez pas vergogne ba pare ngeen ne kenn du ko wax. takk suuf gi ngeen doon laam laame naan am na am na eh, am na ba mu neex. papa naa PDG takk na ko takk suuf takk bu rafet takk na ko takk nañ ko takk suuf léegi man xale bu jigéen bii ngeen yàqal liggéeyam nii ñu dàq ko nii ndax seen affaire u bases yi ay affaire u dëbbu as yi ay affaire mbang nday njaay mbay ngeen dàqlu ci sénégalais bi nga xamante ne mu ngi liggéey ci hôtel boobu hôtel hôtel boobu ça fait des années mu ngi liggéey ci hôtel boobu di ci am salaire di ci dimbali ndeyam di ci dimbali baayam ngeen dàqlu ko noonu ndax seen affaire doomaraam yi ñàkk fayda yi ngeen dàqlu ko noonu noonu noonu noonu noonu tappate leen live bi ngeen dàqlu ko yow koo xam ne Sénégal injustice lu tax yow nga jógee ci Sénégal ñëw ba ci réewu France sax dañ lay jaay doole dañ lay jaay doole ba pare gis ngeen Papana PDG bu yeboo na ngeen jabaram bu yeboo na ngeen ko baalu àq ndax moom ci boppam moom mooy jaxasekat bi dégg naa ko muy may xaalis danaan la sama jabar bu mu ko yëg bu ñëwee ci jabar ji ne leen ay caga lañ faalewuma leen ay caga moom moo tas këram moom moo jaxase këram wër ci xale yi jigéen ñi tey nga doxaan kii suba nga ubbil kii boutique suba nga doxaan kii suba nga ubbil kii boutique nga tax ñu traité fi sa jabar ay kott ak lu nekk te yow sa jabar lu mu sangoo yow mi yow yaa ko jox lu mu sangoo yow mi yow yaa ko jox demul dikkut boo jógee nga di ko moytuloo nit ñi moytul ñi moytul nangam sàngam pour yéen ñi naan aéroport kenn jàppee ko aéroport ñibbi na ba pare samdila la ñibbi démb ci suba lañ ko woo dañ koo bàyyi ba mu toog këram ba ñu woo ko moo tax doomu aadama dafa lëndëm te yéen xaalis rek ngeen di topp ndax réew mi léegi da ngay nekk benn milliardaire nga daal di jënd say say say say jënd jënd say saagakat jënd ñoo xamante ne dañ lay waxal ku yëngu nga daal di koy noq mille euro ku yëngu nga noq ko mille euro ñun nag kenn bokkaluñu dara waaye bu ñu gisee injustice man sama sœuru sénégalaise boobu ñu dàq ci hôtel bi man moom laay xeexal. ndax waruñu koo dàq ndax seen problème mu tëddante doomu xaraamata njaay yi imbécile bu ngeen jógee def seen lu ne weng ba pare bu ngeen jógee amee nit ñi naan nit ñi dañ leen a iñaane bu ngeen jógee di way di gaaru yéen may leen nit ñi ay caga ngeen vous étiez des piteuses xaw ma pit euh, euh, euh, des pit de prostitution déguisée ngeen di def xale yu leen di ñee wala xale yi xool sax di jël ci yenn référence sax nekkul nit barki Seydina Muhammad yéen a ngi ci otel 5 étoiles di tëddalante guddeeg bëccëg te buñ leen ñëwee wax ngeen ne selaw ñun doomaraam baadoo lay bu ñu waxee ngeen naan ñun dañoo iñaan nag nañ lijjanti suñu problème dama ne kii nii ngeen dàqlu waroo leen ko woon a dàqlu xale bu jigéen bi dañ koo dàqlu otel ba fa la doon liggéeyee ñu am salaire bu baax di fa liggéey ay ati ati at yaa ngi dégg di ci dundal ndeyam di ci dundal baayam yéen a ngi jëlante seen rendez-vous ngeen nekk fa léegi moom lan moo ci yoonam lan moo ci yoonam ban ba ba ba ngeen koy dàqulu mais lan la au moins ngeen bàyyi ko sax mu liggéey liggéeyam. rendez-vous la ak kilifa yi ñu ngi ci hôtelu cinq étoiles ak kilifa yi hôtel bu ñu dem nag bu amee sénégalais dootuñu fa tegati seen tànk. xaw ma nu mu tudd de capture conventionnelle xaw ma rupture conva man xam xaw ma jàngu ma nguuru Sénégal kilifa yu mag yi nga xamante ne ñoo fa ne ñoom ñëpp ay vieilles chouettes lañ ay vieilles rococo lañ ay mag yu ñàkk fayda lañ ay mag yoo xam ne sans personnalité lañ moo tax gis nga joomaay continué waate rëbb bi jàppal kenn par kenn ñoom ñëpp ñafal seen ndey ci kaso bi ndax ñii li ñu yàq dafa bari dañoo yàq ay xale dañoo détruire ay nit dañoo yàq ay liggéeyu jàmbur ay sale chien lañ ay mag yu kilifa yoo xamante ne pour ñoom lépp xaalis a koy def àdduna lépp du xaalis ñun dañoo nekk ay sénégalais yoo xam ne ñun ay alam lañ amuñu ku ñu waxal te am amuñu maamu député amuñu maamu ministre ah ngeen nekk ci dëkk bi jël ay xale yu ndaw yoo xam ne ay vingt ans la am ay vingt cinq ans di leen jëndal ay oto une deux trois ngeen ubbil xale yi boutique une deux trois ngeen këf xale yi maa ngi dem Paris jeeg maa ngi dem Fara lan la lépp ay rendez-vous bëgg a jolle la. li ngeen di gis xaaj bépp ay rendez-vous bëgg a jolle la kenn ñëw fi France fii bañ nañ ko ba bu ñëwee France dañuy taxawaale ci boutique yi. yaa ngi dégg buñ duggee Louis ñu ngi dugg Chanel ñu ngi dégg fii ñoo ngi dugg fii léegi ko wax ñu naa la da ngaa iñaan da ngaa soxor dangeen ngeen lii xale yépp ñoom ñoo leen fayal ay chirurgie une deux trois ñu fayal xale yi ñoo ngi fayal xale yi ay chirurgie ñoo ngi leen di ubbil ay boutique ba pare ngeen ne kenn du ko wax léegi waxatuñ loolu nag doomaraam yi ngeen fekkati sénégalaise boo xam ne mu ngi daan dooleem ngeen xañ ko liggéeyam loolu dañ koy xeex France li ngeen fiy def da ngeen koy def mais da ngeen di bàyyi nit ñi ci jàmm ak salaam kenn lijjantiw leen ndax bu ngeen nekkee ay mag yoo xamante ne da ngeen a nekk ay mag yoo xam irresponsable ñàkk fayda amoo leen vergogne di iri ay xale yu ndaw te yor seen jabar yi ngeen yor seen jabar yi ba pare ngeen di iri ay xale yu ndaw ah? woykat yoo xam ne buñ toogee di duul di victimiser wu ay duulkatu ndaana lañ nekk ñu benn victime ñoom ñoo nekk seen victime bopp. te ko wax ñu ne la dangaa soxor man maa tey chaque jour na buñ ko jiiñee dara ñëpp nag rasu te mu ngi dëbbate dëkk bi miix sedd rey la. mu ngi dëbbate dëkk bi miix sedd rey la te bu yàggee nag tubaari kàll jëkkër ji nag dina am dëgg ci moom waa waa doful jinne jàpp ko xam na li may wax man xale yu jigéen ñi ragal du man bu yeboo ngeen ne damaa iñaan mais xale bu jigéen bee ngeen tax ñu dàq ko mu ñàkk liggéeyam ndax seen affaire yu ñàkk fayda yii kon ngeen may ndeyu nit ñi jàmm bu ngeen dëbbate Sénégal ngeen dëbbate ko mais Europe fii moom du ngeen fi ñëw moom ngeen di duulal nit ñi wala ngeen di sosal nit ñi ba tax ñuy jàpp nit ñi di leen renvoyer di leen dàq seen liggéeyukaay yéen lakkale kenn ngeen sono ngeen leen Sénégal danga fay toog bëgg lijjanti 1000 francs doo ko am nga sonn Sénégal jaaxle nga jógee ci Sénégal ñëw Europe bëgg a nekk ci sa jàmm ay kilifa yoo xamante ne amuñu personnalité di indi seeni caga yéen kay bu ngeen ñëwee bëgg a jolle leen au oh, calme ngeen dem ngeen may nit ñi jàmm mais kooku ngeen fekk foofu muy liggéey ngeen yàqal ko liggéeyam ndax lan da leen a gis ndax da leen a gis te moom dafa nekk sénégalais comme yéen ngeen foog ne daleen di boole wala da leen di kii kooku amaana sax mën na leen sax bañ a lijjanti ndax mentalité française la yor ndax yàgg na fa ndax yàgg na fa te moom bi mu ñëwee moom duggul ci ci ci ci maanaam duggul ci yow yaa ko romb di ko xool ba mu neex la nga ne ko ndax sénégalaise nga mu ne la sénégalaise laa nga ne ko ah mpii de c'est la première fois ma gis fi sénégalaise muy liggéey mu ne la waa moom fi lay liggéeyee nga ne ko ah yéen de ñun de dañ leen di soxla ñëwal Sénégal ma boole la ak président léegi bi nga ko waxee ñëwal ma boole la président mu daal di lay romb nga bind sa numéro jox ko ne ko sama numéro ngi nii loo soxla rek wa amul problème muy Sénégal muy fii mën nga maa woo mu jël numéro bi dem yàlla def mu romb ci seen bunt néeg gis ta yow ngay génnee fi nga xam ne xale bu jigéen ba fala dal waa léegi moom laa wax lan moo ci yoona nga tiit mu daal di tiit mu toogaat fa tuuti nga dem daal di koy sosal lu ne weng mu daal di am rupture conventionnelle moom lañ ko jox rupture conventionnelle xaw ma moom lañ ko defal ba pare ngeen ne kenn du ko wax ndax lan ragal te kooku nekk sénégalais mu ñàkk liggéeyam ndax seen affaire yu ñàkk fayda yi seen voyage yu bal yi yëpp ay rendez-vous la koo ci gis mu ŋàbb naan je suis à Suisse je suis à Paris rendez-vous la ak kilifa yi ñu ngi ci hôtelu cinq étoiles ak kilifa yi hôtel bu ñu dem nag bu amee sénégalais dootuñu fa tegati seen tànk xaw ma nu mu tudd de capture conventionnelle xaw ma rupture conva man xam xaw ma jàngu ma ki ma expliqué lim ma wax. ba pare nag am seen ay nit tey jii boo waxee ci ñoom di nga gis ku la saaga ba tooy mais man tant que man dóoroo leen ma rek man aw ma problème. Traoré sama waajo nuyu naa man bu ngeen ma saagaa takkuma fenn rok su caga takkuma fenn sànq am naa benn góor jigéen bu ma mu naan kii de jëkkëru zif bu ko ñee la muy daj ba am loolu noonu laa wax mu daj bu la ko waxee tey nga tëgg gémmiñ dama ne la muy daj ba tax muy jënd daal yeeg saak yeeg veer yeeg di la romb di cokos cokos yeeg ka senab bu ko ñee de ay bu la waxoon la mu daj bu la waxoon la mu daj gis nga seen oto yii nii laa wax ñuy dawal nii nii nii nii nii koo ci gis naan waa man maa dem ñibbi waa xolal kii waa xo ee eh, dara xew tey nag bu ñu leen tàllalee micro ñu naan sénégalais yi dañ leen a iñaane ñu commencé di justifier waaw dañ ma soxo dañuy lijjanti sam e eh, fii kenn lijjantiwul vie wu kenn dañuy lijjanti seen vie ndax xam nga lan moo tax ñun suñu xaalis ñun moom lañ jël daal leen koy jox ñun sénégalais yi nga xamante ne ñun ay sénégalais am alam alam ndaa lañ koy wax xaw ma ñun lañ jël suñu xaalis jox ko ay xale yu ndaw ñii ñu daal leen ciy ubbil ay boutique ñii ñu daal leen ciy finance ñii ñu daal leen ciy def lii ñii ñu daal leen ci te lépp suñu xaalis la kon buñ ci kaasee dañ cee war a kaas ba mu neex ba pare nag ñu am ci ay preuve à l'appui war koo wax ba pare ñu naan dañ ciy ñàpp ndayam dëgg suñu tànk et fii kenn du fi dëgg tànk ku ne xam ne ne aar bi dafa dee aar bi dafa nes ñu ngi koy waaj a palaanigal fii aar mayewu fi dara seen cagatu déguisé yi bii nii laa wax ngeen di def moom ngeen war a may nit ñi jàmm te kuñ ci wax nga naan man damay liggéey kuñ ci wax nga naan man je suis une femme battante yéen dangeen a xam lan mooy femme battante femme battante sax xanaa waaru na. e man su xolal sama njaayam cheveux mi ah am na xaalis te yow jaay cheveux dugg boutique jënd ay dàll Chanel trois mille deux mille cinq cent euros jaay cheveux daal di laal sama bénéfice daal di dem George cinq nga xam ne niwi mille neuf cent quatre vingt euros la mille neuf cent quatre presque deux mille euros niwi deux mille euros niwi et eh, xale yi dem leen ngeen jaayi cheveux na xale yépp dem jënd cheveux jaay njaayam cheveux mi kon am na secret boo xam ne kon ñun ñii ñun xamuñu ko et eh, xëy tàllal sama micro maa koy yëngal yëngal maa koy rëgëj rëgëjal jër oto 30 millions et suba ma dem ñàpp ndayam dugg studio dem waye ah woo leen ma waa jolli suba damay dem génn ji kaset ndax way bi day fay ñaari concert deux bal yoo xamante ne ay 3 millions moom lañ lay fay nga yor oto 30 millions saagu fendi garde de robe ngeen ne kenn du ko wax te ko wax ñu ne la dangaa yu nuyu naa la man bu ngeen ma saaga taquma fenn rok su caga taquma fenn sànq am naa benn góor jigéen bu ma room mu naan kii de jëkkëru zif la am nee naa leen man sama jëkkër sa du bu daa la li gën a dee am na keroo ku ne kii de chrétien la séer ma ne leen déedéet du chrétien juif la am na ku rëkkaat juif ma ne leen bu daala et vos mères con vos mojja matin midi soir je calcul calcule même pas vos mères con matin midi soir faalewu leen man kenn dundalu ma ku bëgg a wax ngeen ne kenn du wax ndax ragal te yéen li nga xam ne moom laay ngawti ŋawtee ci kaw ni yéen ñëpp yéen yéen a ngi koy wax yéen maanaam ci suuf